bàyyi ma paa baal ma nekk bëgguñu nga dem bëgguñu nga dem bëgguñu nga dem sëya sëya sëya sëya lijjantuñu eh. de eh tey dal ak sac xam nga sac bi ba xam jënd ko lijjanti eh leen booy kan bu ñëwee du ma wax dara. dara saftuma dara saftuma maay fàttali bi may toog Portugal nga agressé booy king sama papa nga agressé yow ban papa yow xamoo ban papa yow Sangara amul papa amul yaa amul mag ah loolu ngay wax loolu laay wax déedoo ko waxati yow police du décroché sapeur de yéex a ñëw nee nañ dee du raccroché koñ bi waaye jamante gerante ci koñ bi waaye tax police jël sama sifal gi ma kaso yaay ngay andi lekk police yi bu max la la yaay yaayu sàcc bi